ma nga noonu di tàggatoo des moment des moments forts ah des moments tristes waaye des moments tristes mu ngi noonu Macky Sall a ngi noonu. di tàggatoo ba léegi non ba léegi ñoo ngi ci présentation. yi nga xam ne day génn day génn Basirou. da koy gunge génn bi génn bi c' est pas encore officiel actuellement c' la ah, présentation. waay ça actuellement c' la présentation. mais day day génn day génn oto baa ngi noonu di arrière Macky mi ngi noonu di tàggoo ak ñi nga xam ne. ñoom ñoo nekkoon ay proto ñoo nekkoon protocole bi ah ñii la àndanoon di liggéey tamit ci biir pale bi gis nga mu ngi noonu tamit di saluer ñi nga xam ne mooy rek ñi nga xam ne durant douze ans yi nga xam ne nekk na ko ci biir pale bi gis nga mi ngi noonu mu ngi koy takkal médaille gis nga noonu gis nga noonu maquère gis nga noonu image yi ah gis nga noonu caabi bi la koy jox ah caabi pale bi la koy jox noonu. gis nga caabi la président Macky Sall daal di yor noonu gis nga mu ngi noonu di ko wane voilà mu ngi ko naan nag mu ngi ko naan caabi bii nag mooy caabi kër gi ah caabi kër gi di la si ñaanal lekk mu doon réussite parce que tey Bassirou Diomaye fay bu réussir mën nañu wax eh, ndamu Sénégal la ndamu Sénégal la voilà mu ngi noonu di ko jox mu ngi noonu mu nekk des moments forts des mu nekk des moments forts am Macky yaa ngi gis noonu image yi voilà yaa ngi noonu yaa ngi noonu euh, Maker gis nga mu nekk image yu triste. lii ima image yu la mais image yu kii la aussi quoi image yu vraiment de bonheur la. bonheur waaye surtout parce que tey boo demee ba kilifa bu toll nii le président Macky Sall. Mhm. yëkkati <clears throat> ay caabi donc dénk la caabi li nga xam ne mooy caabi. Euh, mhm. caabi kër gi. mu ngi koy dénkaane tamit waaw mi ngi dénkaane. non lii c'est obligatoire il doit le présenter ñi nga xam ne ñi nga xam ne. ah àdduna nii la après 12 ans ay après 12 ans président Macky Sall mi ngi noonu di génn fi nga xam ne mooy pale bi ah di fi wàcce ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay noonu après continuité lay doon ah continu continuité continuité lay doon mu ngi noonu di génn ay 2012 nii la woon ah 2012 nii la woon président Abdoulaye Wade daan ba mu daan génn ci li nga xam ne mooy ci pale bi. président Macky Sall di dugg ah Macaire gis nga noonu image yi waaye ñu ngi noonu ànd ñoom ñaar mais mais nag mais nag gisuma ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko ci biir pale bi ah Macaire. waaw seenuñu ko seenuñu ko. actuellement waaw seenuñu ko ci biir seenuñu ko. en tout cas mën naa nekk de communication bi rek lañ gis boobu bu jomaay ndeysaan tàggatoo baa ngi noonu tàggatoo baa ngi noonu waaye tàggatoo baa ngi noonu waaye dina ko dina ko ñaanal dina ko dina ko ñaax. dina ko dénk voilà voilà mi ngi noonu mu ngi noonu le président Bassirou yi moo ngi noonu di dugg ci pale bi ah, maintenant yow yaay boroom kër gi ah yow yaay war a gérer yow yaa war a jël sa famille daal di former benn équipe une équipe boo xam ne tamit eh, war a liggéey pour euh, Sénégal gis nga noonu le président Macky Sall mi ngi noonu di génn wala Bassirou Diomaye mi ngi noonu taxaw di ko xool. des moments des moments forts des moment de bonheur hein, des moments de bonheur voilà mi ngi noonu le président Macky Sall vécu de boubou blanc mi ngi noonu comme comme d'habitude rek Sénégal nag nii la nii la après Bassirou dañ koy ñaanal Makeer Makeer tamit dafa mel ni image yi tamit dafa am lu lu mu la def. non image yi def ma dara sax c'est juste. comme tout Sénégalais. tout sénégalais rek moment yi dafa nekk moment yoo xam ne euh, vraiment mhm. képp kuy sénégalais rek war na laa itel parce que vraiment nekk na loo xam ne lii la ndam ndamu Sénégal la mhm. du ndamu Bassirou Diomaye du ndamu le président Macky Sall malgré ñoom joué nañ ci rôle bu am solo mhm. mais ndamum Sénégal la tey le président Macky su tëddee dina nelaw tey mën naa ne moom gàcce gaa la moom le mhm. président Macky Sall def na lu ko war mhm. ci li nga xam ne moo moo moom moo ko war ci depuis bi nga xam ne moo toog ci nguur gi mhm. actuellement nag moo ngi noonu gis nga ko ak ñi nga xam ne jege nañ ko mooy le premier ministre noonu actuellement nag à partir d'aujourd'hui euh, la ngay ki nga xam ne le président basiru Bassirou Diomaye Diakhar fay moo ko yor léegi le président Macky Sall ngi noonu niki tey su duggatee biir palais dafa ñaan audience. ndikki tey boo génnee bu buntu bi tëju sa ginnaaw euh, le président Macky Sall mais nag bu leen fàttee le président président moom day am benn immunité boo xam ne. Mhm. moo koy téye gis nga moo ngi noonu. turam aussi itam du dañati ci histoire du Sénégal c'est fait waay c'est fait. il est le président. Mhm. de il il était le président de tous les Sénégalais. durant durant douze ans. Mhm. mu nekk loo xam ne macha allah euh, ku nekk. moo ngi koy rafetlu doxalinam ñenn ñi am na ñenn sax ñi koo xam ne ŋàññi nañ nu mu doon doxalee. Mhm. mais nag jeex na tey ki nga xam ne mooy le président Bassirou Diomaye fay moom la ñuy xaarani ñuy xool moom lu muy def ndax dina def li nga xam ne moom la fi le président Macky Sall def. wala boog dina def lu ko fi raw wala dina def li nga xam ne moo ko gën a yées. tey bu mu am. Mhm. ñett yooyu mooy li nga xam ne moo nar a am. voilà vraiment ça c'est touchant. et on verra si le président Macky Sall va sortir saluer ses ses ses proches. Mhm. tey Macky Sall dugg ci président PR. Euh, auto PR bi mais tey mu ngi dugg ci président matricule Dakar DK loolu aussi lu ñu jar a signaler la mhm. ça prouve que vraiment maintenant moom ak man ak moom ñoo yem léegi man ak moom ñoo yem léegi pouvoir you ok.